kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko fa jëmale ko ci leaderu Pastef du euh, Ousmane Sonko dem ba koy dut baaraamu tuuma mm-hmm. moom ak ay militant wam euh, di faat ay jigéen euh, mu ñu ko la fam ko tibbee mooy ca la xewoon ca yaraax mm-hmm. bi nga xamante ni sànnoon nañ fa ay cocktail molotov ba mu tàkk moom nee na ay militant wu Pastef ñoo ko daal di def donc comportement wu président Macky Sall boobu nag jamono ji mu jël comme ni ma ko xewoon sànq loolu ban jàngat nga nga ciy def yow. waaw dafa am ay image yoo xamante ne dañ ko ciy gis. Mhm. xam nga bu fekkente ne da ngay gëstu nit tuuti euh, li ñuy wax euh, euh, nu nu mu tudd psychologie. Mhm. dafa am loo xamante ne dañ ciy dañ ciy dañ dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax mooy intelligence émotionnelle. intelligence émotionnelle moom dafay étudier li nga xamante ne mooy émotion yi dafay étudier li nga xam ne mooy caractère yi dafay étudier li nga xam ne mooy micro émotion yi sax ak li nga xamante ne bu nekk bu jógee fa mu jëm ak naka la duggee. da ngay da ngay comprendre même su fekkente ne bu au delà de yaa ngi gis bi ko bi ko Macron doon fal euh, bi ko bi mu ko doon nommé <laughs> si quatre pays envoyé spécial mais am na ñu ne mais président moom ñu ngi ko ñu ngi koy fal mais dafa dafa mu mer waaw kanam gi belluwul dara. kanam gi belluwul donc donc pour man pour man nit ñi ah, gis nga yaa ngi comprendre. gis naa Aminata Touré sax di ko di ko di ko tooñ. di wax ne jamono ji nañu ko nañu ko jege parce <laughs> non c' est vrai wax na dëgg. <laughs> nee na nguur gi jeex moo mel noonu. non wax na dëgg surtout nga xam sa àpp. mais mhm. mais mi ngi mel ni lan moo waral tey jii ñu ne yàlla du wax kenn bés bi nga fiy jógee imagine toi koo xam ne dañ naan dafa condamné. Mhm. mais nguur ñoom wax nga ko moo bi nguur nguur mooy lan mooy jouissance lu neex. Mhm. yow booy génn sa doom sax ay agent bib ñoo koy garder. yaay buur yow yow ngay buur bi mm. yow boo waree jaar ci corniche bi rek da ngay dañ lay xaalal nga def benn flèche dem. Mm-hmm. tey ji ñu ne la le cinq avril boo fiy jaar sa oto lay doon ak yow yaa romb dem. Mm-hmm. Sandaga boo fi duggee yow kese yaa dugg amul ku wër donc loolu lépp nga bàyyi ci xel et bu ma demee lan mooy nekk sama ginnaaw kii ñëw kan la. Mm-hmm. nan la may traité nan lay traité samay ñoñ. donc beaucoup d'interrogation yoo xam ne dafay taxaw donc loolu lépp nag su nekkee ci ci kanamam foofu moom yenn jafe-jafe moo tax lii nii dafa feeñ Fatick rek. mais yàgg na nuyu ba mu demee Paris moom Macron Macron di ko tab saa waay ñàngal ñu lay fal dara nga ñàngal ba ñëpp na nu xanaa li ñu koy fal neexu ko ne parce que dañ koy fal waaye dafa ñàngal <laughs> foofu la mbir mi commencé di dem. Mhm. mu ñëw Fatick nga gis mu enchaîné affaire yi jël Abdou Karim nga def ko nii jëlaat keneen nga def na lay def nii gars yi dal seen kaw bu baax a baax dal si kaw. até dem bay ŋàññi sa bopp sax ndax. mu jëlee système euh, euh, éducatif bi. di wax que nañ ko changé lan moo tax ñuy wax langue te loolu yow yow mi yow wax yaakaaroon nañu indi ay coppite kay. Mhm. dem na sax bay ŋàññi boppam. dem dem na bay ŋàññi boppam. Mhm. système éducatif ba dafa dafa yooyu yëpp dafay wane ne actuellement euh, dafa toll si benn situation bu compliquée. Mhm. bu metti na situation bu méttee métti la toll xam nga lu tax situation métti mooy dafa nekk dans une zone d' incertitude maanaam zone boo xam ne dara wóoru ko. xam nga benn candidat xam nga ne sa candidat bi dooleem tax koo demee noonu wóor la ndax sa candidat day gagné mais su ko wóoree ne candidat am day gagné loolu mooy première assurance bi. Mhm. dafay toog am xelam dal mu toog ci pale bi na Amadou doxalal loo déroulé noonu la mais sa candidat dara wóoru la si beneen mbir bi mooy après man kan mooy ñëw amu ci benn idée. Mhm. amul benn idée ci kay wuutu suba amu ko donc loolu tamit benn incertitude la boo xam ne dafay taxaw di ko travailler après man kan mooy ñëw. su kooku ñëwee nan lay demee ak man nan lay demee ak ñi nga xamante ne mooy sama entourage proche bu ñu fàtte ne entourage proche am dañu mës a impliqué ci état mm-hmm, mm-hmm. am na gorom ci biir gouvernement bi. Euh, am na am na jabaram mi ngi mi ngi ci biir mbir mi mm-hmm. donc yooyu yëpp boo ko ci gisee am na ci ay mbokk ci biir tamit la famille Timbo donc yooyu boo ko ci gisee après euh, lan lan mooy am après donc euh, voilà pas mal d'interrogations yoo xamante ne nit ki bu koy xalaat et puis les jours passent je dis que ni man maa ngi jëm ci kanam mais fi ma jëmee lan la. Mhm. aw ma incertitude aw ma benn certitude yi fi ma jëm donc kooku day day day day day am problème day am benn ci biir benn bouillonnement bu fa nekk boo xam ne du du stable du nekk et je pense que comme ni ko Aminata Touré waxee rek jamono ji ku ku soxla ku ko ku ko ku ko dimbali la. Mhm. mais nag en partie moom mooy responsable bi. en mhm. partie moom mooy responsable bi euh, parce que comme ni ñu koy waxee rek euh, gis nga. mais mais est que tamit euh, nekkul ni dafa. dafa yàgg jàpp ci xelam comme mm-hmm. gis nañ troisième lu jëm ci euh, sa troisième candidature daanaka euh, mbir la woon boo xam ne da ngay dafa a def euh, ko waroon a mën a amal est-ce que nekk luy nekk di am nii daf ko mbetteel la ci moom maanaam nekkul li nga xamante ni moom préparé na ko. non boo bëggee dégg dëgg rek kay bu pexeem antoon kay du dem. Mm-hmm. mais moom wax na ko sax ne dafa choix stabilité kon xam na ne woon day bokk après instabilité mën na am. manifestation mën na am ñu tëj ci ay nit yàq ci ay commerce jàmbur te loolu lépp lu lu ko waral dañ naan moom moo ko waral. Mm-hmm. dañ naan moom moo ko def su boobaa mais comme xam na ne tey jii su bokkee mun na indi instabilité mu daal dellu ginnaaw donc kon deltu ginnaaw bu ñàkk pexel la que ba léegi boo ko déggee wax danaan yoon may na ma ko moom ba léegi daa gën a mënoon naa bokk. <laughs> moom ba léegi entretien bu danaan yoon may na ma bokk waaye man maa bokkul parce que dama choisir stabilité dañ ko sekk ak xamante ne loolu lañ defoon cheval de bataille. di ko xeexee boo waxee ñu ne non président warul bokk di créer ay mouvement di di di mais loolu lépp am na am na pression mu daal di dellu ginnaaw kon euh, diir bi mu falo deuxième mandat mu ngi doon xool ndax dina nooy ndax du nooy ndax dina nooy ndax du mooy mais mu dem ba benn moment nag yàlla nattee ko benn adversaire boo xamante ne. Euh, pression bi pression bi Ousmane Sonko léegi nag euh, moo tax gis nga discours am boobu ba mu koy def dafa am lu loo xam ne nit ñi pour moom war nañ ci bàyyi xel. ba mu ne du ma bokk lan la ci teg je ferai pour que les décisions de Mhm. te booba nee Ousmane Sonko condamné nañu ko à deux ans de prison ferme mais ba mu ne moon du ma bokk loolu lan lay sous-entendre du ma bokk waaye képp ku ñu condamné tamit doo bokk maanaam damay dem waaye dama lay yóbbaale. <laughs> donc loolu non non loolu loolu discours boobu la la servir bis boobu du ma bokk waaye je ba muy dem du ma bokk kay lan moo si yoon décision de justice nañ ko appliquer. te appliqué wu ko ci gën a xam bu ko appliqué woon appliqué bu juge Sabassy Faye bu appliqué bu Sabassy Faye effectivement mais seet li nga xamante ni moo leen arrangé ñu def ko malheureusement nag après moo ko dugal ci mbir yëpp xam nga parfois ay calcul gis nga mm. Abdou Aziz euh, Diop te mu nekkoon ministre conseil mi euh, bu mu defee audio boobu noonu bi mu génnee ci APR dama ko compté mu def mu mu mu discours bi def naa douze minutes la xaw ma le mot pexe revenir na quarante et fois pexe président bàyyil pexe ñu ngi lay wër di pexe Farba Ngom day pexe ay pexe nga nekk pexe ni pexe nga pexe ba yàlla jox la opposant bi gën a xëye di ci àddina mm-hmm. pexe nga pexe pexe pexe pexe bi ñëw na quarante et quelques fois j'ai oublié le chiffre exact mais kooku xam na ni tey jii fii mu toll nii tey jii ak situation yu mu mujj yëpp ay stratégie politique ak li ñuy wax ni ruse politique ak moo ko yóbbee fi mu nekk nii mm-hmm. maanaam toog di calculer kii dina dem kii du dem nan laay def ba kii avancé nan laay def ba kii dellu ginnaaw nan laay def ba jot si lii nan laay def ba kii falu yooyu moo ko indi ci lii mu nekk tey ci mm-hmm. est-ce que mun nga comprendre président boo xam ne du dem mu dem ba mu dese que 48 heures mu war def discours mu dajale élu yëpp ne leen yéen laay déglu ku nekk ñëw di ko joxoñ yow la boo demul parti bi tas yow la yow la yow la yaa fi nekk. yaa yow yow la ñu àndal yow la ñu wóolu. koñ ñi bataleel. koñ ñi bataleel bu bëggee parti bi ma. Hmm. ñu teg ci ñaari fan président toog ne leen yaa dew ma mais ñooñu doon wax ñooñu ñëpp président seen crédibilité jël na ko ba mu rafet mu dugal ko ci benn tiroir tëj kenn amatu ci crédit fa laa jaaree nag ma ne ku ci mel ni ay maam booy jaaw ku ci mel ni yu mag ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nëpp pour man waratuñoo taxaw di laaj réew mi parce que koo xamante ne yoo xam nga ne lii euh, li muy wax ni waru koo laaj waru cee am yow nga taxaw. tubayu ko ne ko yaa ko war a laaj wala yaa ko war a am je pense que kooku tey ji euh, côté côté côté sincérité mm-hmm. dafay poser problème foofu nag laa nawee tamit Aly Ngouille Ndiaye parce que yooyu moom kenn mësu ko cee gis. laata ñu dem ci suñu dernière question dañuy daal ci addu ci leaderu Pastef bi ndax defe naa ne ni ki tey jot nañu ay xibaaram maanaam ay nouvelle am Habib moo ko daal di joxe ne jamono ji retrouvé waat na santé mi ngi ca prison bu Cap Manuel amaat na mi ngi mën a amaat ay visitam euh, lu jëm ci grève bu xiifal bi tamit dégg nañ ci kàddu yi nga xamante nii yëkkati nañu ko mu mel ni daal euh, bu ñu mënee euh, jàngat jàngat bu gàtt ci li nga xamante ni. moom la Habib jàll jàllale ci Ousmane ko mooy ne jamono ji mi ngi ci euh, jàmm wax na sax nañu focus ci li gën a am solo jamono ci ñu toll yi mais ne Ousmane Sonko euh, d'après li xew yëpp euh, moom assurance am na ko jamono ji toll nii. man dem dama mësa wax ne grève de la faim bi su ma mënoon am ku ma dimbali wax ko mu bàyyi ko mu da koy bàyyi. parce que mhm. man dama jàpp ne wér gu yaramam. dañu soxla intégrité am dañu soxla mu taxaw taxawaay boo xamante ne moom lay mën a dimbale ñi nga xamante ne ñoo koy jàppale. Mm-hmm. parce que de la faim boo mu doon def dañ ci doon bëgg dañ ci doon kontaan. Mm-hmm. information boo si jóg da nga gis ñu ko doon relayer ak ñu ci doon bëggee mais moom xam ne fi ñu toll nii tey jii euh, même prisonniers yi nga xam ne ñoo nekk campagne Cap Manuel wala Rebeuss boo leen seetsee lu ñu leen njëkk wax. non affaire bi yàggatul trois mois moo ci mhm, des mhm. trois mois moo ci des donc kon moom tey ji moom mi nga xamante ne moom moo porté projet bi moom la am yaakaar mais kooku tey jii bu fekkee ne dañoo dégg ñu naan feebar na mi ngi réanimation ak yoonoon mais ñoom ñu nekk prison dañ naan mais kii ñu xeexal ñun ba nekk kaso bi bu fi yaramam jaaree lomp ñun fu ñu jëm mhm. parce ak keneen ku ñu bartaleel tamit ak lu mënti tamit ñun moom lañ bëgg te gëm nañ ne bu ko yàlla mayee bakkanam tôt ou tard mën na yegg li nga la soxla ak gàllankoor bu ñu ko munti tegal euh, mën na fa mën mën na fa yegg bés kon kooku tey jii pour man il est temps comme ni ma ko waxee laa dernière fois mu comprendre bu xëyee toog comme ni ko ñenn ñi defee koo ci gis dana naan fi ñu toll nii maa ngi nii damay bind rek ce qui est sûr et mooy li ñuy wax ne prison solitude bu fa nekk dafay dafay assagir nit maanaam daf lay def nga doon sage après. Mm-hmm. parce que tu es en entre quatre murs. no daawoo am jot parce que yaa ngi doon entre manifestation recevoir audience léegi mën nga xëy huit ba douze heures nga jël sa texte jël sa plume di bind bind bind bind bind bind bind boo sonnee tëj bu ngoonee nga génnee livre yu mag yi bu dee alxuraan bi nga liir euh, nafar bu dee français bi la nga liiraat yenn borom xam-xam yi def ni mais boo ci génnee dangay doon benn kàngam boo xamante ne kenn du la mën mm-hmm. mën nga fa defee réflexion yoo xamante ne sax après daf lay sa àddina. Mm-hmm. moo tax ñu ne parfois yàlla biy defar dafay mel ni kii yàq. Mm-hmm. loolu nag boo ko comprendre moo tax ma ne fi ñu toll nii man su ma doon moom ma ne su ma ko doon conseillé dama naan ko fi ñu toll lekk ba suur naan ba màndi di recevoir ay audience jox gars yi ay pion ñiy dem ñi. di joué non di joué di damyee di pousse di damyee di pousse. non instant bi xeexu xel dëgg lay def. non xeexu xel dëgg non foofu la mbir mi toll. Mm-hmm, mm-hmm. foofu la mbir mi toll parce que su su leen mayee lu ñu bëgg rek mooy maanaam euh, wane na ne dañ koo gagné wane na ne euh, am ngeen li ngeen bëgg parce que fi ñu toll nii kat mën naa. Euh, mën mën naa dem tëddi jàpp sama ñaamur parce que gagné ngeen ma non daf leen di gëmloo ne 2024 sama 2024 la te même bantu bale su ma ko tegoon sax war ne naa mën a gagné je pense que optimisme boobu noonu euh, su su ànd ak moom rek mën na ko mel et puis loolu dafay gën a revigorer base bi mm-hmm. ñu gën a ànd ak animation gën a taxawaat euh, parce que dañ naan ah ñun kat suñu suñu kilifa jamono ji taxaw na temm nañ nekk ci ginnaawam Euh, su ko defee rek ñu am li bëgg. am na solo Moustapha Mbaye journaliste sunu gain 24 la dalal tey dañuy daal dem ak moom directement. ci hmm. question bu mujj bi ñeel suñu naataangoo Pape Ndiaye jamono jën toll